asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. waaw kenn ku ne ñu koy nuyu ci turam ak santam ci Big diil Touba TV fii ci Argentine ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant di leen wax na leen bés bi wax dëgg yàlla ñëpp kontaan nañ gan yee ngi fi li war jaam yi def nañ ko Baye Fall yaa ci liggéey bi murid yi def nañ seen poos ba mu jeex te ñu ngi màggal pareeguñu ñu yegg si nii daal di dugg ci première salle bi war leen a wan li nga xam ne moom la ñuy doxal ci màggal gu ne waaye màggalu 2023 gi wax dëgg yàlla dafa neex a neex ba àllaa daw me te temps bi demagut fenn ñoo ngi ci 5 nii mu ngi mel ne dañuy soow commencé lekk nañ naan nañ fii ñu rang nag ab kebaab lañ koy wax te kebaab ñun xam nañ ko yëfi jullit la Baye Fall yaa ngi toog garme yeeg ñëpp a ngi nii toog soxna yaa ngi nii soxna urban ñi ay nasaraan lañ waaye nasaraan yi waxi olof lañ soxna kumbaa ngi noonu ñëpp a ngi nii bërëb bi nag mooy shawarma bi shawarma moom kenn du ne ñun ñoo ko moom ñun mi ngi nii ñu ngi defal kenn ku ne ah wax dëgg yàlla muy yàpp woo xam ne togg na ko ba mu ñor lii xam nañ ko kenn du ko laaj lan mooy shawarma rang baa ngi nii nasaraan saa ngi nii wax dëgg yàlla teewe nañ góor yàlla yaa ngi nii ñëw nañ fekk ñu bokk ak ñun bés bi muy bés bu rafet ba sub Serigne Touba boo ko bëggee wàññi ci at dañoo jàpp rek ne lii la mais ba sub Serigne Touba dafa yàgg daf ne sant leen ma yàlla jullit yi ñu ngi fi ñëpp a ngi fi tijaan a ngi fekk lépp woo ba woo yéefar woo na ku ne woo catholique képp ku fa guddee yow la mu ñëw ne sant la leen ma yàlla nañ sant yàlla sama borom sant yonent bu tedd bi soxna yee ngi nii mooy sa ndey yi ndeysaan nii ñëpp waa kër sëñ Touba lañ di suñuy soxna tamit ñuy def lu baax lu ñu fekkee lu ne ñu bokk ak ñoom teewee léegi bu ko defee maanaam dañuy ñëw daal di jàll koon ca waañ wa ñëw comme que fii salle bi nga xam ne fii la kebab bi nekk ak café yooyu bu ñu fi jugee dañuy dem ca wa daal leen a wan nag la des ca waañ wa ba tey ñu ngi màggal pareeguñu lii ci couloir bi la muy bërëb bu yaatu Baye Fall Baye Fall yi daal di koo dogu Baye Fall yi dogu ko jaayante ko waral bés bi wax dëgg yàlla tey xol sedd na xam nga xol sedd na mooy saa yu ñu nee màggal gi dàq màggal gi ci topp daal di koo gën a neex saa yu ñu nee màggal gi dàq màggal gi ci topp gën koo neex Baye Fall yi nag ñoom ñëpp a ngi nii ñëpp dañoo depuis demb ci guddi lañ fi nekk sonn fi lool ci biir sëñ Touba bëgguñu lenn dul sëñ Touba Serap Fall sëñ Tuubaa daf ne sant la leen ma yàlla waxut ne nañ def leneen wala nañ def leneen kon ñi ngi koy sant la yàlla fii nag ñu daal di dugg nii bërëb bu waañ wi la ñëpp a ngi Baay Faal yaa ngi nii ñii ngi ci raxas mi ñii ci wàllum euh, asaado maanaam yàpp wu ñu teg ci xal wax dëgg yàlla alaa na ñi ngay seen ñaari fan ñi ngi fi ñoo yor wàllu raxas mi mën ngaa ja euh, sama technicien jëlal ma ñi xool li ci ni mel góor yàlla yaa ngi nii ñi ngi fi ñaari fan lu tilim ñu raxas lu tilim ñu raxas lu tilim ñu raxas soxna yaa ngi nii jëlal ma ñoom ñëpp ñaari fan a ngi nii nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg lépp lu fi tilim danañ ko demel la mu dar amuñu lu gërëm leen sant leen waa kër Seera Faal a ngi nii sant new ñoom ñoom bu ñee sant ñoom ñoo yor sant gi ne bu dara tilimee kenn du dund lii nag mooy wàllum asaadoo yi yàpp yi nga xam ne moom lañuy teg ci xal bu ñëwee rek nga daal di dagg jël sa en salada salaat ak ñoom seen daal di teg ci wet gi ni nga ko sentiree rek waaw Argentine ñoom nii la lekkee yàpp dañ koy teg ba mu ñor nga jël sa paaka dagg lii la ñuy wax asado moo tax gaa yi bu ñu fa ñëwee naan asado bi laa nam duñ fa nangoo yàgg parce que fii da ngay dund lii yàpp bu baax la lépp sëñ Tuubaa nag bii bu gratis la nag sénégalais kenn fayu dara dañoo cotiser rek bu gratis baa ngi nii dangay ngay dagg lekk ba sonn teg fii lu ñu def lu jéem a yegg si fii ba tey ci waañ wi la les soxna yi la ndeysaan nañ jël soxna yi dagg frité yi bu ñu paree dugg ci biir waañ wi bisimilah soxna yaa ngi nii yaay faal yi wax dëgg yàlla di suñuy soxna ñoom soxna yu sénégalais lañ ñu ngi nii ñoo yor wàllu salade de fruits yi ñoom seen ak ñoom ñëpp wax dëgg yàlla di yàgg cee sonn kële maam jaara la moom kenn du ko wax sama rakk la moom ci yoonu sëñ Tuubaa bi moom kenn du wax lim ciy liggéey ci la dëkk ci la dëkk saa su ne ñii ñëpp ay jàmbaar lañu te ñëw nañ ci nag ba Sénégal kii mi ngi woon kër gu mag jamono yi def na kër gu mag ñetti weer waaw soxna si def na kër gu mag ñetti weer waaw moom moom ilaa njaareem waaw yow nañ yegg ci biir dañoo ne cib liggéey yow yaa tal empanada bisimilah yegsil nii waaw daanaka waañ wi dañ koy waañ wi dañ koy raxas comme que dañuy raxas waañ wi léegi dañuy ñëw yegg ci côté bële nañ dugg ne ñëwal nii bisimilah ñii nag nasaraan si nag lañ fay nasaraan si lañ fay pour ñoom ñu lakkal ñu ko ñoom ñu koy lakkee ci seenam réew parce que ñu ñuy lakkee ñoom ñu ñuy lakkee du benn ñëwal bisimilah ñoo ngi nii ñoom ñëpp a ngi nii wax dëgg yàlla ñu ñu defal asado lii ay xar la gis nga niñ koy lakkee mar day taal yi bu ñu paree da ngay coppati rek ne ci la wax dëgg yàlla muy màggal goo xam ne saa yu ñu nee giyee dàq rek beneen bi ñëw gën a neex ah ñii nag comme que ñooy doomu réew mi ñoom ñoo xam ne ñuy def yàpp gis nga niñ leen def dañoo xotti biir bi rek daal di ko diw ñoom yu saf ak yooyu ne ko rëngat takk nii lay def ba ñor te xal yi da koy sori waaw ñu jóge foofu daal di ñëw ndeysaan ña nga ne leen di defar ensalade yeeg bagage yi mu war a àndal ñu ngi nii waaw ingrédients yi bagage yi ci war a dugg ngi nii ñoom soble ñoom yëpp waaw gis nga ko ni jëlal lépp jëlal lépp suñuy mbokk argentin lañ waaw suñuy mbokk argentin lañ son gente bueno hola se puede ver todo ellos son la gente que hace lo asado porque ellos saben su cultura nosotros cultura arroz con ustedes, el cultura asado, le hace bien. De 10, gracias a Dios. Somos la familia de Argentino, África, Sénégal. buñ fa jógee ñu daal di ñëw gaa yaa ngi nii ci ganaar yi cëm xoolal lii xool na muy def ganaar xam nga cëm mosuma koo gis Sénégal màggal gi daal moom dafa ala daw me maanaam daal ku sonnut moom boo moytuut da nga fi sant Njaay waaw xool ni muy def ganaar gi dañ koy dugal ba muus rek ñu génne ko waaw di koy saaf allahu akbar togg benn soos wis ko ca lépp murite sëñ Tuubaa nangu na loolu ni nga wax neex na buñ ca yeggee mooy loolu ma ñëw côté bi ñoo ngi nii ndeysaan jàmbaari waañ waa ngi nii ñaari fan nelawuñu kooku moom mooy ndiga maas kenn du leen ko laaj borom ngaaya ngi noonu ndiga maas a ngoog kële booy moor la namul dara dool liwut mi ngi ci réew mi booy mbay dàq naa ko bul yegg foofu ci télé sileveur sama sileveur la woon dàq naa ko bàyyi maaraa ngi nii ndeysaan moom sama rakk la namut dara gis nga lim takk ci weer mi ngi fi ñaari fan ne ji kër kër yi kii sama rakk la mbay moom it waa njaarim ndeysaan déedéet jën jëwriñu waañ wi non non non jëwriñu waañ waa ngi nii loolu kay kenn waxatu ko kenn waxatu ko jàmbaar lañ ci waañ wi waaye kokkali seen i grand doo ngay seen liggéey nga def sa mbaxane mu roos waa <laughs> jërëjëf wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ ñaari fan a ngi nii nag nelawuñu so man man man maa ngi nii tëddee njaaxaanaay lépp sëñ Tuubaa la waaw lii nag gis nga soxna ma yeeg noonu ndeysaan moom ci wàllu soxna yi gis nga ko moo yor wàllum saaf yàpp wi wax dëgg yàlla tuwaarkal la liggéeyu sëñ Tuubaa moom nii laa ko ci xamee bi ma duggee ci réew mi beeg léegi mu fekk ma ci réew mi xamee ma ku lu liggéey liggéeyu sëñ Tuubaa du ma gis ci yeneen détails wax dëgg yàlla yàlla na yàlla xeeb dolli kontaan nañ waaw soxna yeeg ñëpp a ngi nii kon duñ def rek lu dul ñëw noo gisee bés bi bés bi noo ko gisee laa bëggoon nga wax ma bésub sëñ Touba bi euh, te ngeen sonn ci ñaari fan ma bëggoon nga wax ma noo gisee bés bi. waaw bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar Big Deal Big Deal in di ziar euh, Gambie bu baax sëñ Mamadou Camara ñu ngi koy ziar di ziar sëñ Gora Seck ah di ziar yow Paate bu wér ah, di sunu grand wax dëgg yàlla ah di rafetlu bis bi lool macha di wax ne màggalug Sëñ yi daal moom saa su ne rek moom Sëñ Tuubaa day wane boppam bu baax rek waaw ndax bis bu ñëw rek eh, gàccaal ya fi romb waaw moom ku ne gis na ne moom dëkk bi yëngu na daal waaw dëkk bi moom yëngu na yëngu goo xam ne maanaam Sëñ rek moo ko waral daal waaw mbokki taalibe yi ñëpp ñëpp ñëpp kenn àndatut ak sa sago waaw ndax bisub Sëñ bi waaw moom mu mel ne ñoom ñi nekk ci dëkk bi yëpp ak mbokki nasaraan yeeg sunu mbokki avocat yeeg ñëpp koo xam ne rek yaa ngi ci dëkk bi rek xam nga ni Sëñ Tuubaa moo le ndax lépp luy ay innovation rek def nañ ko waaw kon ñi ngi sant Sëñ bu baax di sant mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi yëpp waaw di leen ñaanal suñu borom ñu teewee ko ndëgëni déwén ak mbokki taalibe yi nga xam ne ànd nañu ñoom liggéey bi lu mat ñetti fan ñu bàyyi seen i liggéey yëgatun dara ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ji waaw ñu xam ne daal moom lépp taw fii na macha allah ñu ngi nii di togg reer léegi lañ yekk añ yi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax jërëjëf kooku di jëwriñ Mara di jëwriñu waañ wi wax dëgg yàlla ñetti fan nelawuñu moom ak délégation bi mu àndal ñoo ngi nii dañoo dem ba jeex mais teewut ñu ngi kon ne waxtu reer bi la ñuy togg nii te reer bi tàmbaleegut fii ci Argentine ñu ngi ci 5 heures 25 minutes maanaam kon xam nga waxaguñu waxi reer njogona la wala njëkke buñ jógee ci njogona li soog a dem ci reer léegi duñ def lu dul yegg ci biir wax dëgg yàlla comme que jëwriñ gi wax na rek suulaale na ñëpp rek mel na ñëpp wax nañ waaw kàddu yi rafet na lool te sedd yàlla na yàlla xeeb dolli ci barke Serigne Touba ay ca bismillah kon dañuy ñëw yàgg ci biir wane wane booy rek daal di après libre ay ca bismillah ay ca may ko mu ñëw bismillah xaadim ubbil buntu bala ma laa yóbbu maam xaadim ubbil buntu <laughs> bala ngay dem télé waaw ñoo ngi ci wax dëgg yàlla waaw ñoo ngi nii ñu war a dugg rek wan bërëb bi ndeysaan ñu wan bërëb bi wan na bërëb bu ñuy jël rek dañ ciy boole suñu tout tànk yi yaa ngi live waaw kon dañuy ñëw rek wan leen bërëb bi nga xam ne fa xale yi nekk di fo xam ne soxna yaa ngi nii ak gone yi fii moom lépp jàmm màggal gi kenn merut waaw gone yaa ngi nii waaw léegi nag fii ñu dugg nag pour gone yi la lii suñuy tuut tànk lañu lépp nga fiy gis suñuy tuut tànk ola na def tout tànk yaa ngi nii lii lépp daal ñoo ko moom lii waa Boy na Saayre la lii mooy doomi capital yi seen i baay yi taalibe murit di waa Kër Sëñ Touba ñoom ñëpp a ngi nii ñoom ami xale yëpp ngi nii wax dëgg yàlla daal su xool seddati na daal xool seddati na ñoom fii la ñu nekk foo ba doyal bu ñu paree duñ ñu sonal mag ñene fële ci di jàng kon duñ def lu dul ñëw yegg fële waaw ñu ñëw yegg ci salle bi bu ñu demee ci salle bi wan leen li nga xam ne moo nekkaat ci bi après daal di wëlbatiku dellu ci bërëb bi parce que tamit boo déggee sant la leen ma yàlla njàng mi la waaye du tee ñu wan leen li nga xam ne def nañ ko ci mil 2023 bi di ñaan yàlla 2024 gën a ñëw gën ko dàq ci barke yonent bi ci barke yonent bi léegi xam nga lu ñuy def dañu ñëw yeggaat ci biir après war a yegg ci bërëb bi waaw lii Baye Fall ya defaru nii Baye Fall lii ñoo defaru war a cant ci kanam commencé guñu commencé guñu Baye Fall ya defaru nii war a cant war a cant ci kanam waaw léegi Baye Fall yaa ngi nii Baye Fall yaa ngi nii ñoom ci kanam ñoo war a sant nii naka saa ñii ñooy waa kër gi ci boyna Aires lu liggéeyal sëñ Touba Seera Fall taxu leen a jóg ci kanam ñoom ñooy yegg ci biir war a yëngal ci barke Serigne Touba waaw. إلا الله أكسا لا إله إلا الله لا لا Faal.